léegi nag salaatul fatiha doon naa la ci bëgg waaw ndax sala salaatul fatiha dafa doon loo xamante ne nii nee la mooy benn salaatu boo xam ni amul benn salaatu bu ko ëpp doole waaw salaatul fatiha boo jàppee ba noppi nga wax allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima uhliha walxaatimi lima sabaxa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq xadrihi wa miqdaarin azim mhm. alaaji Maodo ñu jégal la sa bàkkaar bu fekkee ni da nga bëgg yàlla dimbali la ci juróomi fan nga koy liggéey allahumma salli ala sayidina muhammadin al fatih lima ohliha ha nga daal fa yam de fof nga yam al fatih lima ohliha nga ne waxala alihi xaq qadrihi wa miqdarihi al azim nga def ko 1111 nga wat benen jour bi nga def allahumma salli ala sayidina muhammad alxaatimi li ma sabaha wahala alihi xaq qadrihi wa miqdarihi al azim 1111 beneen jour ba nga def allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi xaq qadrihi ah nga def ko noonu nga koy toppe noonu nga koy toppee ba salaatul fatiha bi jeex incha allahu rabbi aajo boo am sunu borom dana la ko fajal gis nga gis nga am na ci am na ci benn talsamu salaatul fatiha bu garaaw a garaaw na ma jégal mais gis nga bis boo ko waxee noonu waaw gis nga bis boo ko am nga six cent fatiha hay xalalaahin aslasin aslasin asin siyasin hayrusin six cent mille salaatul fatiha la heure boo ko waxee képp ku jàkkaarloog yow suñu borom jéggal ko moom moom xay hay xalalaahin am na ci yoon wu baax wu gàtt woo xamante ne ni képp ku koy liggéey ajjuma sunu borom dana la dimbali dina la may ijaaba dana la may kaaraange dana sàmm sa njaboot ak lépp loo bëgg ci àdduna suñu borom dana la ko defal dana la musal ci mbugalum bàmmeel dana tax booy jéggi siraat it sa sa sa sa jéggi siraat dafa dafay gaaw mhm. fi ne fi ne lépp lépp am na lu muy bañ mhm. maanaam jàng alxuraan mhm. bañ nañ ko boo koy def nga bañ a ànd ak jàpp waaye salaatu ala nabi moom nangu na ko moom salaatu ala bi surtout salaatul fatiha nangu na booy def booy boo boo koy def nga bañ a ànd ak jàpp waaye donte ànd ak jàpp gi moo gën mm-hmm. heure boo ko waxee sunu borom nangu te sunu borom day nangu ba pare te du la ko delloowaat mm-hmm. beneen boobu dul boobu nag mën nañ koo nangu mën nañ koo delloowaat mën kon nag Mouhamed Moustapha ñu ngi lay sant baax mm-hmm. li nga ci dolliwaat daanaka ab émission la ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm wax dëgg yàlla kontaan nañu trop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 حق قدره ومقداره العظيم